salaam aleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di jaar ci tur ak sant ku nekk di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla boole nu aar te boole nu suturaal ci daraje rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak daraje alquran di leen gërëm di leen sant di leen massawu coono te di leen wax ni duma kenn ku dul seen nawle rek ngay góor di jigéen di mag di ndaw man Abdoul Aziz sa nawle rek la Sénégal na dafa am lu ñu xewal lu yéeme loo xam ne nii tànk génnuñu ci ñu am lu ñu gënal mën nañ bañ a torox waaye mënoon na fi gën a baax waaye ci kaw ñu bàyyi loolu loolu mooy lan mooy képp ku ñu fi takkal ndombal tànk nga jafe kenn deetu la jot ci téléphone nga jafe kenn mënula seet ba gis la kenn mënu laa ñaan audience ba nga accordé ko ko ngay dow nit ñi teewul ñu topp la ndiiraan te duñ la teg bët naw loola fonk la ba dem wax ni sax mën nga nekk président te li ñu yor yaa leen ko jox waaye teg ko bët tëla ticc te teewul moom nga gën a fonk ki wàcc ànd ak yow def la nawle ku mel ni man man maa wàcce sama bopp donte kawewuma waaye ni ma suufee dama gënaat dama gën a suufewaat ànd ak ñi ma bokkal groupe grand groupe républicain que fi formateur bénévole des jeunes leaders politiques du grand groupe républicain Moi, mooy sama rôle ci groupe bi loolu la fi donne def liggéey boobu jeex na tey liggéey bi def ci GGR jeex na ma maa walanteer woon li ma xam te bariwul ma séddoo ko ñi ma bokkal groupe bi di ay jeunes leaders politiques waruñu wuutu ñun bu ñu fi jógee loolu moo donne sama contribution du groupe GGR loolu jeex na léegi bu rafetee loolu laa mën su ñaawee loolu laa mën jeex na léegi kaddu yi may ko président Macky Sall moom moom kaddu yi xam li ci président Macky Abdul Aziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République, membre de l'Alliance pour la République avant tout cela, membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République avant que d'être conseiller spécial à la présidence de la République pendant 12 ans, sans avancement. J'y reviendrai. Pourquoi di la ko dégtal ndax bind ci këyit wees na yónnee la vidéo wees na dem ci débat di wax pour yow wees na di wax pour suñu régime wees na bind article pour suñu régime wees na wax ak yow rek kat bi yu mujj jëmale ko ci yow moo ci des xanaa bu amee yeneen kàddu yu ci teg mooy bis bi may bu ñuy def passation de service nga yëkkati li yàlla tegoon ci sa loxo teg ko man ci sa loxo ndax sénégalais yi fal nañ ma waaye nag bu ma sénégalais yi pour ñu fal ma li ma lay ñaan te moom laa lay mujjee ñaan te am nga ko te du la jaral te du la dikkee dara ndax yomb na la mooy nga bàyyi pexe Macky Sall bàyyil pexe Macky Sall bàyyil pexe Macky Sall bàyyil pexe bàyyi pexe jot na Macky Sall bu la far ba Ngom di dugalati ci pexe Macky Sall bu la far ba Ngom dugalati ci pexe Macky Sall bu la far ba Ngom dugalati ci pexe far ba Ngom jàngul far ba Ngom jàngul arab far ba Ngom jàngul alxuraan munul tari ina anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayru min alf shahri تنزل الملائكة فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي أتامت له الفجر فربنغم منوكو تري بوكو تري لونك ألم نصر لك صدرك وودهنا أنك وزرك الذي أنقد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الحسر يسرا إن مع الحسر يسرا فإذا فرغت فانسب وإلى ربك فارغب منوكو تري فربنغم منو تري قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين وينك attention لكم دينكم ولي الدين وينك attention du yonent bi mooy dugal nit ñi ci diine ji yàlla leen ciy dugal kon nag boo nee lëkkum diini kumbalu ya diin dangay xam kii dugal diine ci kii dugal nit ñi ci diine gi yàlla leen ciy dugal sunu borom moo ko wax yonent bi yàgg na du yow yaa dugal nit ñi ci diine ji man maa leen ciy dugal far ba Ngom mënul tari ñetti ay ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti suraat yooyu mënu ko tari kon du moom moo la war a dugal ci pexe pexe yoru ko Il Ngom na la ci ba nga am une première guerre au Sénégal mars 2021 mu dugal la ci am une deuxième guerre au Sénégal juin 2023 mu dugal la ci pexé dugal au ci pexé ba ñu lak kërëm bayil farbangom mu dem a nga mu nek mère mu liggéeyal te ci mi nga organiser élection yu mucc ayib te nga dem te bàyyi pexé bu la soxna bu la sa soxna lo lankal bu la sa fexé lo lankal bu la saw fexé lo lankal bu la militante lo lankal bu la militant lo lankal bàyyil pexe pexé wees na ubil le ubil kër gi nit ñu dugg nekk candidat rawatina man mii ànd ak yow conseiller la fukki at ñaar parce que yàlla moom le ci da dem surat 29, verset 41, yal yàlla verset bi ku surat bi mi ngi tudd al ankabut l'araignée fa la yàlla lépp surat verset 41 wa inna awhanna al buyuti la baytul xankabuuti law kanu yahlamun bayil pexe yàlla gërëmul pexe jargoñe la ëpp pexe waaye pexeem amulu ko benn njëriñ yàlla ko wax ci alquran wa inna awhanna al buyuti la baytul xankabuuti law kanu yahlamun lu tax yàlla nee na jargoñ moo leen ëpp pexe yéen borom pexe yi ndax buy dugg sa néeg doo dégg tànk yi ndax bari pexe da ngay jékki-jékki rek mu def néegam ci sa biir néeg waaye néeg ba dëgërul boo ci lonkoy sa baaraam rek mu topp la kon pexe yoru ko pexe yoru ko pexe yoru ko président Macky Sall man maa njëkk yëkkati sama kaddu le 5 juillet 2023 salle des banquets yaa ma jox parole soo ma joxul woon parole du wax yaa ma jox parole dama la daan joxe parole place de l'obélisque bu ñu musaan am manifestation pour le compte du mouvement du 23 juin na ma la daan joxe parole te su ma la joxul parole doo wax noonu nga ma joxe parole le 5 juillet 2023 salle des banquets ma yëkkati sama kàddu nga ni ubbi nga liste ku bëgg a nekk candidat waxal ni bëgg nga nekk candidat man maa njëkk a wax ni dama bëgg a nekk candidat ba pare wax fu ma ko teg ba noppi lu du may jël kaddu di wax ni dama candidat ba pare wax ko ma def la jox bi gagner le débat la démocratie face aux pulsions poursistes et au terrorisme extraordinaire ma jox en version française version anglaise version allemande version italienne version portugaise version espagnole ak version russe muy ñaari cadeau version française bi me dédicacé ko na ko au président Macky Sall au chevet du du Sénégal avec des résultats probants signé Abdelaziz Aziz Diop ton conseil spécial pendant 12 ans je t'ai tout donné tu m'as donné le peu que vous aviez je vous ai tout donné de moi-même et je ne vous ai donné que de l'or par l'écrit la parole la marche amul demalul amul ponkol bu fi bind dal kon régime man maa la tontu Ibrahima Fall professeur de droit public maa tontu Abdelkader Abdelkader Boy professeur de droit public maa tontu mahtar Diouf professeur d'économie maa tontu le collectif des 102 professeurs qui ont écrit sur la crise de l'état de droit maa tontu Jean-Louis Correa que que 49 professeurs membres du PASTEF qui ont produit un tract man pour le compte de notre régime et pour ton compte en tant que président du parti auquel je suis membre et du fait de mon appartenance au à l'aile cadre du secrétaire exécutif national kon fait ngir jëmmi république bi ak Sénégal parce que man Sénégal ma président de la république intéressé mais keneen intéressé ma loolu lépp teg ko ci sa nga liste ma bindu ni dama bëgg nekk candidat nga réunion bi la recevoir gannaaw bi nga recevoir ay nit ma di ko dégg ci ma di ko gis ci presse bi te man recevoir uma te defuma la waxu ba daal lu dul dox sa yónnent ak ndax yónnentu réew mi nga yor kon kañ goreel te bàyyi pexe ndax pexe yoru ko bu ko yoroon xam nga ci dara candidat à bëgg doon parce que lii gagné élection présidentielle du 25 février 2024 du pexe du du cursus diw daal nekkoon ministre nangam nekk ministre nangam nekk ministre nangam donc dara desul pour mu nekk lu mu nekk président fuñ ko teg ki ko gën jaar-jaar nag ki yore un mouvement du 23 juin pendant un an ku wax moo la jox micro théoriser ko bind ko ba ndam ñëw bind nangamin téeméeri article bind nangami cadeau def ans d'opposition 12 ans de pouvoir je connais les rouages de la présidence de la République comme je me connais moi-même c'est mon expérience c'est cette expérience que je veux mettre au service de mon pays en m'appuyant sur le parti et sur la coalition à laquelle j'ai appartenu pendant 12 ans et contre lesquels je n'ai fait rien de mal. Encore moins faire du mal en ce qui te concerne, en ce qui vous concerne, vous, le président Macky mais nak doo gën demine ñak ma recevoir du tax nga gën ma demine fexé ba duma ma bokk ci élection présidentielle du tax nga gën ma demine ndax sama baye mo ni ma won Abdoul Aziz Manu ne kon naam mu ne ma lu xew na nga jub dellu ni ma Abdul Aziz ma ni ko naam mu ni ma képp ku la yàlla booleel jox ko li gën ci yow njub laa àndeek yow li gën ci man laa la jox laa la jox ma ni bàyyi waaw su ma joxee ki ma àndal li gën ci man la lan la may jox man mu ni ma du la jox dara waaye lu mu yàgg-yàgg du la gën demin président Macky Sall amoon nooy def ba man nga gën ma demin soo bëggee nag sa demin du doon demin bu la gënalul da ngay yemale jaam yi jot na nga yemale jaam yi boo demee bay dem da ngay yemale jaam yi man nga bañ ma recevoir teguloo ko fenn ba ñu ma nag ku yàq sama der ba ñu ma nag ku ma dëkkal ci néeg bu ma dëkkul ba ma borom pexe yi waaye pexe yàllaa ko tere wa inna aw xal nal buyuuti la baytul xànkabuuti law kaanoo yaxlamuun doxul bàyyil pexe président Macky Sall pexe moo tax tey nga am opposant bi gën a bi ci àddina vous avez l'opposant le plus minable de l'histoire du Sénégal du nom de Ousmane Sonko te yaa ko teg sa bopp ndax yaa doon wut pexe ba yàlla fekk la ci say pexe indil la kujje goo xam ne nii fu ñu toll di la saaga te sañoo leen a teg dara ñu teg leen daan mag Ousmane Sonko yoon topp ko mënoo fexe ba jàpp ko ba ñu ko niib pourquoi parce que yaa ngi lal ay pexe yoo xam ne ni du sotti ndax yàlla moo gërëmul pexe sabab sabablu la la wax bokk na ci nga sabab sabablu nga nangu ma recevoir ma janook yow wax la sama yéene nga tabb ma boo dee tab kañeen sax baax na ñu nekk ñaari candidat parce que man candidat laa fas yéene doon ndax li ma bëgg a dëgtal Sénégalais yi man rek la nekk ci sama dënn te yéene naa ko sama réew ba nga nag nëbbee jant bi fukk at ak ñaar bàyyi ma nag léegi dara dem nga jàppale ma ma dem élection présidentielle daf la war parce que maa liggéey lu ñu toll ci réew mi maa ko wax maa ko dox bokkul ci ngor nga lay recevoir ay yeneen bàyyi ma fi te boo moytuwul far ba ngom da nga dem ba defe ni ñaari weer ci des nga dem wala benn weer moo ci des nga dem am lu la dab loo xam ni nii ku la ni woon danga la dab nga weddi ko pexe mooy indi loolu moytul far ba ngom jàngul français J'angul arab amul ngor amul teggin amul sutura lu ko neex wax fu ko neex yendu lu ko neex def ku ko neex xas du nit bokul ci jam yalla gërem moytu ko te nga and ak Abdoul Aziz Diop te nga jappelé ko ñu and jot ci réew mi continuer liggéey bi ñaari at ak genn wàll la may jeune Sénégal suma xeyé ñu xey ñaari at ak genn wàll laa may jeunesse su Sénégal bu ma nekkoon président tey su ma xëyee ñu xëy man duma ma diggee mi emploi su ngeen ma fale dama ni ñaari at ak genn wàll laa may képp kuy ndaw di góor du jigéen duma ma xëy te xëyuloo ndax yow yaa ma jox xëy président ki ko fal moo ko jox xëy mun leen a jox président yéen ndaw ñi xëy ba pare président di xëy te xëyu leen ñaari at ak genn wàll laa maye pour su sénégalais yépp xëy loolu bëgg Sénégal Macky Sall ma ko Sénégal ba ma Sénégal fukki at ñaar moo tax nekk chevalier de l'ordre national du Lion je n'ai je refusé d'augmenter un grade pourquoi parce que yaa ma xañ liggéey xam li di xaar bis bi bis bi ñëw na nga bëgg a defati fa nga bëgg a jaar fa nga jaaroon du sotti te boo ma boo ma recevoirul wax ak man li ma yeyoo nga teg ko ci sama loxo ma ànd ak yow ñu liggéeyal Sénégal donte neewatoo fi doo ma gën demin mukk te da nga dajeeg loo xam ne nii da nga ni lii man Macky Sall dinaa dajeeg moom te du du jóge ci man parce que man duma man duma xupp kenn duma artu kenn waaw sañuma ko te rekk ko sañ man du ñuy duma ma ku ñuy yóbbu kaso ci ay fausse nouvelle duma ma ku ñuy yóbbu kaso ci ay xaste duma ma ku ñuy yóbbu kaso ci ay saaga moo tax ku yaakaar ma saaga Macky Sall wala ma saaga Benno wala ma saaga APR APR ñu baax rekk a fa nekk Benno ñu baax rek a fa nekk ma saaga leen fu ma koy teg ndax amul li ma bëgg loolu dee ma ko gënal. ña ne benno ay nit ñu baax lañu ay mag ñu baax lañu ay xale yu baax lañu ay góor yu baax lañu ay jigéen yu baax lañu ñi nekk APR ay mag ñu baax lañu ay ndaw yu baax lañu ay góor ñu baax lañu ay jigéen ñu baax lañu président Macky Sall bi ma àndal lu ne danaa ko def ba mu des xas ko waaye danaa ne ko nag Macky Sall goreel te recevoir ma ndax loolu nga waxanteeg man le 5 juillet 2023 à la salle des banquets laajuma la pour nga recevoir ma yaa ni man dinaa la recevoir ndax candidat nga à la candidature te am na loo teg sama loxo dana la recevoir ngay recevoir romb ma doo ma gën demin te boo bëggee jàmm recevoir ma recevoir ma du jàmm ju ma lay xañ yàlla la koy xañ ndax yaa war man war man waruma la bàyyil pexe fa jeexale moytul far ba Ngom boroom pexe la jàngul alxuraan jàngul arab jàngul anglais jàngul sax pulaar gi muy làkk mu taxaw naan ma lu tax ngay nekk candidat moom far Farba Ngom mënoo gagné bureau de vote moo mën a kàcc man homme ma base locale base nationale la am yow président Macky Sall boo bëggee xam lan mooy base nationale àndal ak man ñu doxantu ci biir Sénégal duñu ñu doxantu ñaari simili te déggoo ku ni Abdoul Aziz Diop na nga def ba Sénégal wërngal këpp loolu mooy base nationale moo ëpp doole base locale lii gagné élection présidentielle base nationale la du base locale c'est l'homme face à son peuple un homme et son peuple une femme et son peuple am lu ci sa dënn di ay kaddu nga delloo si ci bir réew mi ñu dawal ñaari at ak genn Sénégal yépp xëy di góor di di ndaw sama dige jëme ci ndaw ñi te bala ngeen ma candidat ba jibal kaddu yi dënn yi li nekk sama def ko ci lekk na ba amatul fu mu dugal li muy lekk na noppalu dem defar añaam ganji gële ñu ko jox te may Sénégal Jam, jangul arab jangul alxuraan jangul anglais pulaar gi muy làkk sax jàng ko boo ko binduloo woon du ko bind ndax mënul bind mënul lire mënul calculer mu topp la lu ne mu dugal la ca bàyyil pexe Macky pexe jeex وإن أوحنا البيوت لبيت الحنك بوتي لو كانوا يحلمون يو فربا غون بو بغي خام لومي فري دا غاي ديم تي فوتا والو يفا نيك فري لوكو مان سما دوم والو لا تودي تيرنا امدو الفا بوي ناجي موم لا تودي سما تيار تيرنا امدو الفا بوي ناجي تي بوي ناجي تي فوتا مان عبد العزيز موم لا تودي سما تيار تيرنا امدو الفا جوب kon on ma fuuta gënoo ma xam lu luy fuuta Cheikh ba nekk ci bopp kër Alpha ci xam na wax ku bëgg a faneen fudul Abdoul Aziz doomu Sénégal rek nga sa loxo ci ëkk ndax sama bi ma jur sëñ Si ko tuddee sama ndey ji ma jur sëriñ Morka soxna sëriñ fallu moom moo doon wasilaam moo ma bokk ci Touba. bokk ci Tiwaawan lu baax fu mu jóge man Abdoul Aziz bëgg naa na jóge Popenguine na jóge Yoff Jàmmalaay na jóge Njaasaan na jóge Touba na jóge Tiwaawan na jóge Medina Gunaas na jóge Ceneba fu mu mën a jóge lu baax laa ko tudde ànd naa ca du ma contre ab sëriñ sëriñ yi seen taalibe ba cay catholique ba cay yahud ak ba cay jullit ak ba ca dul jullit seen taalibe ndax loolu moo ma war dox yonent moo ma war mais ñaanal xalif généraux yi nekk Sénégal yépp di ay nawle di demalante di dikkalante musuñu xeexoo musuñu xasante ku xam taarix da nga xam ne ni Serigne Fallou Mbacké radiyallahu taala anhu ak Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ndey ak bàyyi la bokkoon réew mi ñu teg lépp di dox ñooñu ku leen xas alku nga safara moom mooy sa récompense ëllëg man tali seen talibe laa am na ku ñu ci yàlla booleel fii ci Tiwaawan di cheikh Seyd abu bakar si yal na yàlla may ko wér guddal fanam ñu ngi koy ndamoo di ko tiitaroo xale yépp a ko sopp ndax dafa soppulu yàlla moo ko may taar mu soppulu di ku baax di ku bëgg dëgg du di ku yëwan di ku tedd ak mbokkam ma ne Tuuba mbokkam ba nekk yoof jàmmalaay mbokkam ba nekk njaasaan mbokkam ba nekk canaba mbokkam ba nekk popongiin ñoom ñëpp ay nitu yàlla lañu sukk nañ ci seen kanam jox leen seen warma du tee ñu dem doxi suñu soxla soxla bi mooy lan mooy doxal yónnent réewum Sénégal Macky Sall jàppaleel sa mbokk mi di Abdoul Aziz mu dox yónnentu Sénégal loolu nga ko amel leneen loo def dooma gën demin te la la cay fekk du jóge ci man اللهم صل على سيدنا محمد وسلم